والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ربي يسر لنا الإتمام كما يسرت لنا الابتداء بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظهر ثم ما بعد بوك جلدي <coughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي زيارة نيب di ñaanal ñëpp yàlla di wàccee ku nekk ak wàccuwaayam di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawfiix eh, dëgëral nañu suñ gëm yàlla te teel ñu ko boppam ba bis bi ñu dajeeg moom tam nangul ñu ko waaye eh, yàlla wërsëgal ñu jàmm si réew mi ak si bitim réew yàlla benn la jullit ñi génnee fiiwaloo si seen biir yàlla teel umma bi boppam si daraja rasulillahi sallallahu alayhi wa yàlla indi jàmm si senegal loolu lañ ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def hmm, ginnaaw loolu ñu ngi ñëw ak yéen si masnul arbaina annawawi annawawiya eh, ñu ngi tolloon si xadisu fukk ak benn الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح أه، تي سنبلو يالا توفيخم نيغي نيو دي جانغ حديث بيغا خامني حديث بو غات اي بندلا معنى بياتو لول maanaa bi nga xam ne làmboo na kerool ba ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ba ba yàlla diwal buftu bi bépp problème bu ñëw rek da nga gis ne xadis bi ñu nar a jàng tey am na si wàlla waaye yemut sax si régler problème si nit ki yow yow nit ki soo amee problème xadis bi doy na la nga faj ko waaye chaabu bi mooy peuple bi suñ amee problème xadis bi rek mën na leen kaa fajal àddina bi su amee problème xaddis bi mën na leen kaa fajal bi lu tënk xadis dafa ñëw pour dalal xelu jaam bi pour génnee si sikki pour génnee si wax na wala déggee naa waaye nga yem si li nga gis ak lu la wóor nga bàyyi loo njortu ak looy sikki sàkk an abi muhammad jëlee nañ si bàyyi muhammad alxasan te mooy xasan ibni aliyin doomi aliyin ali moom ibni abi talib muy doomi abu سبط رسول الله كيسة يننتبي بس دوم دوم يننتبي جيين دي سيدتنا فاطمة مويا مارين نكو سبط مارين سبط رسول الله كيسة يننتبي اللبي صلى يالندولي خير الله يالله عليه سمو وسلم تدولك مسل وريحانته كين دجق قلم ريحانة فلور له waaye suñ ne rayxaanatihi mooy kam gën a bëgg sa xolom ne fulaan rayxaanati eh, rayxaanati wala fulaan rayxaanatu abihi wala fulaan rayxaanatu ummihi mooy yegg na si xolu baayam fi nga xam ne wala yegg na si xolu yaayam fi nga xam ne wala yegg na si sama xol fi nga xam ne mar day taali ينتي من الله يسمى دفو دفو بقون حسن متهنين ريح نته مو عند جقل ينتبه صلى الله عليه وسلم على أن الريحانة معناها الزهرة من فلور فلور بنيخ رضي الله عنهما سنجم يار كي دي حسن اك بايم دي علي بن ابي طالب يا نين يا لغرم حسن مي اك اك حسين مي مغم اي ندول لا نيو نيك سيتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم ولا بوك حسن اك حسين مي ركم كون حسن موي مغدي حسين موي ركجا اي سيتي يونتي لاني نسقيكو سي فاطمة الزهراء أكيد علي بن أبي طالب نيستو النبي صلى الله عليه وسلم دي سنغو الجنة واي ني امون فتنه لين سي سين دوند كي دي حسن دنكا توكي مو غاينو كي دي حسين دنكا كومبولو رايكو si dëkk bu ñuy wax si bërëb bu ñuy wax Karbala ñoom ñëpp ku nekkoon seen seen fitna mooy Yazid ibnu Muawiya Yazid doomi Muawiya Muawiya yooyu Muawiya mi nga xam ne Abu Sufyan mooy bayam te seen fitna boobu si seen bàyyi la njëkk a tàmbalee mu sonnoon lool ci dundam ba mujj gi dañ ka cor jaase mu gaañu moom Ali finne ji wàccaat si doom di Xasan ba Yazid doomi Muawiya kompuloo ak jabaru Xasan ne ko reyal ma ko mu daal ko tooke si am ñam mu gaañu waaye mu kompuloowaat ñeneen sa Karbala si Kuufa ñu ne ko ñëwal ñu dimbale la mu jugee Medina di dem bañ demee foofu noonu la armée Yazid bi dogaale leen keroog daray nañ ñu bari si waa Banu Hashim waaye rey nañ ñu bari si njabootu Imam Ali moomu qaala wax na ne xafiztu mokkal naa min rasulillahi jëlee si yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama mi ne mokkale naa bi lan lu mokkale si yonent bi yonent bi dakaa wax ne ko daa maa yaribuka ila maa laa yaribuka daa bàyyil maa yaribuka lu lay sikkuloo ila maa laa yaribuka jëm si lu du sikkuloo daa bàyyil maa yëri bu ko lay sikkloo ilaa maa jëm si li nga xam ne laa yëri bu ko di la sikkloo maam du la sikk sàkkal xadis bi loolu kese la daa ma yëri bu ko ilaa maa laa yëri bu lépp lu dalul sa xel tegal bàyyi lépp lu dal sa xel jëfandikoo lépp lu dalul sa xel soo si amul la leer gëstul su demee ba leerul la bàyyil رواه نسن الحديث باب الترمذي إمام الترمذي والنسائي إمام النسائي وقال الترمذي الترمذي نانا حديث حديث الحسن برفع صحيح ببر على كل حال صار ميسي تير الترمذي حديث بدون كو فك صار ميسي نسائي بدون كو فك مكو جلدي حديث بيلو جرب باي خلا ñaata دومي آدمه ñooy dégg xibaar bi nga xam ne wóoru leen dégg nañ rek xibaar bi jug waaye xamuñ cosaanu xibaar bi wala si mbir yi nga xam ne sharian loolu lay dëggalee xibaar mbir yooyu ñëwut si xibaar boobu noonu ñoom ñu gëm ko te sharian gëmul leen ko ñaata jëf lañu tuumaal nit te amuñ si lu wóor ñu gëm ko ñaata wax lañu tuumaal nit ñoom te amuñ si lu leen wóor ñu gëm ko loolu yépp li sikk sàkkal la sa xel bi yonent bi neena nga bàyyi ko ko gëm waaye nga seet li nga xam ne moo dal sa xel te yow xam nga ko nga gëm loolu jamono jii ñi dundu ñu ngi tollu jamono jii nga xam ne Sénégal seytaane am na fi tànk parce que jaxase na mag ñi ak ndaw ñi jaxase na xarit ak mbokkam xaritam jaxase na baay ak waajuram jaxase na ak doomam jaxase na kilifa ak ñem yilif jaxase na ndey ak doomam jaxase na ndey ak ndeyam ba jaxase ustaaz ak kami jàngal bañ jël nit ku set jaxase ko ak ñam ña ko wóolu waaye dem na bañ jël nit ñu tilim setal leen réew moomu foofu la toll lu ko waral mooy si ab fitna bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teel nañoo wax si jamono bu yàgg ne fitna dana ñëw fitna dana ñëw comme que moom yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax ñun xóor nañu ne kon fitna dana ñëw si jullit waaye bu nekkoon ne dafa wax ne fitna dana ñëw rek noppi su boobaa duñ xam fitna bi su ñëwee naka lañuy ñuy def waaye dafa wax ne fitna dana ñëw ginnaaw ga mu waxal ñu fitna boobu su ñëwee ñun jullit ñi naka lañu ñu war a def ñun jullit ñi fitna bi su ñëwee ba daanu suñu kaw naka la ñu war a def kon yow jullit bi diglu bu baax yow mi nga xam ne يا واخني واخ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله غاي جوبل جولي دي وور دي جوخي ازكا دي اجمك ما بغ نغا ديغلم بو باخ غا خامني واخ جي ماي بغ واخ دو واخو خلات سقل واخ دو واخو بانيخو بكن دو واخو bëgg lu neex diw walla diw wala diw waaye waxla la ji nga xam ne luñ jëlee la si alquran di téere yàlla bi di wax ji nga xam ne luñ jëlee la si xadis di wax ji xam ne luñ jëlee la si jëflante saxaaba yi ak seeni wax te jullit bi ñett yooyu noonu royo wayam bu gëna mag ci diina ji ginnaw alquran ginnaw alquran hadith ginnaw hadith sahaba yi kon nak wax su juggé mu juggé ci ñett yoy nonu yow julit bi gëm yalla su ñëwé ci sa xol bi su dëggoo ci sa xol bi waro def dara lu jël wax joju nonu jëfé ko bis bo baye wax joju ba top sa mer kon yow ja yow topoto yalla sa mer nga top sa bakkan nga top bis bo baye wax joju ba top mbolo mi ndax ñom si li lañ and rek man si loolu si loolu la and su boobaa yow topoto yalla topoto wax yalla mais mbolom seytaane nga top bis bo baye wax joju ba top sa pos ndax dañ la dañu feesal sa pos wala dangaa bëgg nit kiy jugee fi suba yow fajoo loolu noonu si tënku si alquran ak sunna mais dangaa faj loolu noonu si sa doole bopp te dama ne jullit lu mu bëgg faj mbir mbir mbir su koy faj wartu tegg alquran ak sunna na jaaree si alquran ak sunna ba faj mbir moomu noonu waaye dama kaa bëgg faj rek léegi damay taaj fee alquran taaj fee sunna ba faj ko ba pare doogu tënkuwaat si alquran dama ne yaa ngi si ireen kon jamono ji fitna ñëw na si alquran ma fitna ñëw na si réew jullit ñi amatan waaye ré euh, fitna ñëw na si senegal xaasatan te mooy politique bii nga xam ne tàbbi na si 2024 bii mu indi ay coow lu bari waxuma ndax dara mais dama wax ndax yow jullit bi politik bii su xewee ba fii woloo am ay dareet nar a tuuru ay coo nar a jug ñaari kuréel taxaw yow lan la la alquran digal nga jëf loolu laa la bëgg a waxal su ma la ko waxalee ba pare nag soo gëmee yàlla gëm yonent bi gëm téere bi nga xool nag yow loo war a def bari na ñi nga xam ne ñi ngi jug bëgg jëf si politique bi xamuñ lu alquran wax ak sunna wax dañu tëmëx tëmëxi yaakar ne ñu ngi si jup te fek nekkuñ si jup kon diglu mu bu baax nga xamne politique bi nga bëgg nga jup bëgg sa duggal sa lamiñ wala sa doole wala sa jëf alquran de am na lu mu si wax lan la ci alquran wax alquran waxal lako nga dogo dem nga am lo ngannaayo soko defut sa xelam bop ngay dem ngay demee وأنا وأن نخسق المؤمنون الأجرين ينتبه صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لب لو ليسك ساكلو بايكو غادي مسلين قمنا سيك ساكلو ولا مبوكي <coughs> فتنة تابينا في سي سنغال ñépp yaakaar ne dañoo war a génnee jaase dañoo war a génnee fetal dañoo war a génnee nangam taxaw si mbedd mi jaayante rayante bakkan ndax loolu la alxuraan wax alxuraan waxul lool ndax loolu la xadis wax xadis waxul ndax loolu la mag ñu baax ñu def ولا نيوم لا صحابه يدف ديدت دفن لول دفن لول القران <clears throat> ينتبي صلى الله عليه وسلم سو دمسي صحيح مسلم سي حديث ابو بكر ابو بكر دا فا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال يعني أبو بكرة فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار نونا سي صح سي صح مسلم أبو بكر تدفع وحنا يونت تبي دفع مصر توق دنيا وخ نه ay fitna dana ñëw ay fitna ay fitna nag su ko waxee yemut si benn dëkk kese fitna yooyu noonu làmboona àddina bi yépp amma waaye làmboo réewu jullit ñi waaye làmboo ay réew si réewu jullit ñi réew bi am na fitna réew bi am na fitna réew bi am na fitna yonent bi moo tax mu ne innaha satakunu fitanun ay fitna dana tàbbi bokk na si fitna yooyu tàbbi tey fitna jii ñuy dund si Sénégal yonent bi nee na ay fitna dana ñëw waaye nag fitna yooyu noonu su si benn tàbbee képp ku toog sa kër yaa gën waaye yaa gën a dal xel yaa gën a nekk si jàmm koo xam ne dafa génn si mbedd mi di dox di jëm ci fitna jooju noonu waaye képp ki nga xam ne yaay génn si mbedd mi di dox te fitna baa ngi xew yaa gën ki nga xam ne dafay daw di jëm si fitna boobu noonu foofu lu mu ci bëgg a wax mooy képp ku sori maanaam képp ku la gën a sori fitna bi rek moo la gën a nekk si jàmm parce que lay dundam di gën a nekk si sécurité si lay gëm yàllaam di gën a nekk si sécurité lan moo tax loolu danañ wax lan moo tax yonent bi nee na su fitna boobu wàccee wala mu tàbbi képp ku yor gëlem na nga yëg sa gëlem nga daw képp ku yor gàtt na nga jël say gàtt nga daw képp koo xam ne am na dëkk boo dëkk na nga daw dugg si dëkk boobu noonu nga bañ fekkee fitna ba benn waaye na ko amut gelem amut gàtt amut suuf sum dem nak mine lolu su amut na nga jël sa jaase jo wara a nga damm ko yaamidu ila sayfihi fayadqu ala haddihi bi xajarin jëlal sa chatu jaase ji nga lem ko bi maana jël sa jaase ji nga denc ko bul fexé ba yëkëti sa jaase jakkalok sa moromu julli nga fexé daw muccu so mëne muccu ba mu waxee loolu ba pare na allahumma hal ballagtu wax ko ñetti yoon benn waay na ko waa léegi man suñ ma jëlee forcé ma nag yóbbu ma si benn si ñaari kuréel yi ne force dinaa xeex su ma demee te bëggumaa xeex am ku ma dóor jaaseem nag wala mu jëm ma fet bu nekkoon ne tey jii la nga ne wala mu dóor ma fetal mu ne ko su la rayee yow mucc nga dafay gàddu bàkkaaram ak sa bàkkaar yow daal di dem safara waaye ak lu muy tàng-tàng yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko na ko suñ la bëggee dóor jaa sa fayul tey lii moo xew fii fii nii si Sénégal yow ba finde bi xewee yow doomi jullit bi yow doomi Sénégal bi ndax se eh, ndax yonent bi daf laa digal na la génnal biti nga jël jaase nga jàkkaarloog sa moromu jullit ngeen cawante ndax daf laa wax ne jëlal fetal nga jàkkaarloog sa moromu jullit ngeen tiire wante ndax ndax daf laa wax ne jëlal ay xeer nga jàkkaarloog sa moromu jullit bi ngeen sànni wante déedéet daf laa wax ne dawal loo mën a mucc nga mucc ko parce si lay sa gëm yàlla di gën nekk si lu wóor si la sa jàmm gën a nekkee si lu wóor parce que yow mu daw fit na boobu noonu soo ko dawee mën nañu wax ne kenn du la rey parce que demoo si fu ñu reyante waaye si lay sa yàlla di gën a wóor parce que lan soo demoon si xeex boobu noonu mën ngaa jàkkaarloog sa moromu jullit nga rey ko te alquran daf ñu wax ne képp ku rey bakkante tey ko safara mooy wàccuwaayam comme que nag daw nga fitna boobu noonu mën nañoo wax ne yow reyoo kenn subaa yow sa gëm yàlla dana nekk si lu wóor yow julit bi waxuma la nga dégloo ma ndax sa mer waxuma nga déglu ma ndax indi sa xalaatu bopp mais dama lay wax lu alquran wax lu xadis wax lu yonent bi wax يونت بي صلى الله عليه وسلم دفنيا تيلا وخني ألق بس دنا نيو سي بيسي دنا أم أي نجيت لمن أي بور ولا أي بريزدان ولا أي بريمير مينيس أي ديبيتي يدمنون ne bis dana ñëw yàlla dana fal si yéen ñu mel ay buur suñ waxee buur nag lépp dugg na si ñoo xam ne dañuy tooñ ñoo xam ne yéen dangeen ngeen matal seen xaq si ñoom waaye ñoom duñ matal seen xaq si yéen su boobaa naka ngeen war a def soo demee si saxiixul muslim si baabul amri بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم سي بونتو بيغا خامني دا سو امي سو بريزيدان ولا سو بور اكو مونتا دون مولاي توغ دي جيل سا علال جي ديكو جاغليل بوبوم ولا اي مبوكم ولا نينين ولا مي جيل سا حق بو مونتا دون دات يونتي بي دافلا ديغال nga muñ بونتو بوبو نونو soo soo demee si saxiix muslim da nga fa fekk yonent bi si xadis boo xam ne anas bun malik moo ko jëlee si usayd ibnu xudayrin dégg nga ne dafa am benn góor bu bokk si wa ansar dafa ñëw wéetu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kanaa dooma fal si barab sàngam comme noo falee diw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñëw da ngeen dajeeg maam bis bis dana ñëw ginnaaw bu ma génnee àddina dangeen dajeek ay njiit ñoo xam ne dañuy gën a lante maanaam dañ dañuy jël ñi teg leen si kaw ñi waaye bis bu egsee na ngeen muñ ba ngeen dajeeg man sama déeba te mooy kawsar kon lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juñ waxoon na ko bu yàgg ne ñun danañ am ay président ay buur yi nga xam ne alal ji nga xam ne ñun ñoo ko moom ñoom dañ koy jël jagleel ko seen bopp ñoom dañ koy jël jagleel ko seeni xarit wala seeni mbokk wala ñun xaq duñ war a jot duñ jot lépp soo ko xaajoon fukki xaaj sax fukki la xaaj bi ñun jotuñ ko waa ndax foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf laa digal ne gendal nga xex gendal ngay dur jassé wala lum la diggal daf la diggal na le muñal dana jeex bis bu ngeen day yegg man bis penc sa hawduba sa deham bobu nonu lépp dana jeex wali hadith xadis yonent bi la ñewna ci sahih bukhari ñewna ci sahih muslim wala ñun legi dañu deggu jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon lii di fitna di am saw njiit mu tooñ la betti ñoon nga xam nañ ne dana ñëw dana tàbbi ak si réew jullit bu munta tàbbi nag rek yonent bi waxoon na ko réewu jullit bu munta tàbbi lu mu sori sori yonent bi xamaloon nañu ne bis dana ñëw danañu am ay président yoo xam ne dañuy gën a lante maanaam dañuy néewal doole dégg nga waaye boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn eh, maanaam déglu la ne la dangay génn di jël saw jaase dégg parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam <coughs> dafa ne ñun suñ moom ginnaawam affaire njiit moo ñuy sonal moo tax balaa muy dem lépp la réglé balaa muy dem lépp la réglé moo tax am na benn waay ñëw ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa bu nekkee sa ginnaaw dañoo am ay buur yi nga xam ne ay président yi nga xam ne ay njiit yi nga xam ne dañoo ñëw jiite ñu di laaj seen xàq ñu leen koy jox waaye ñun suñ xàq ñoom du ko jox loo ñuy diggal si lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko waa ji laajaat ko laajaat ko ay ba ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tontu dakaa wax ko isma'u wa ati'u dégg leen ngeen parce que ñoom seen bàkkaar ñoom ñoo koy xenu yéen seen bàkkaar yi yéen a koy te bis yàlla dana àtte ñëpp kon sa président su la tooñee kay ëllëg bis penc du mu la tooñ yàlla dana ko teg xadis boobu soo demee si saxiixul muslim saxiix muslim da ko fa fekk si baabun fi taati l umaraa wa in manaau l xuquqa mooy bunt bi nga xam ne daf lay jàngal ne la dangaa war a topp sa njiit di la sax yow sa xaq matalu ko di la di la joxul la sa xaq yow danga kaa war a topp buntu boobu noonu na ko fekk xadis bi leen rek lay mottiloo yow jullit bi leen rek lay mottiloo yow mi nga xam ne si senegal nga dëkk mooy bu mbir mi tàng tàng tàng wala ñu tooñ la wala nga bëgg jot sa xaq ba tax nga jëfé ni nga xamné alcorane waxul la nga jëfé non wala hadith waxul la nga jëfé non wala yunus sallallahu alayhi wasallam waxul la nga jëfé non lu lu métti métti nañ nañ ji bi lu mu faj warta merem ba na ba faj lu mu bëgg faj na ba ànd ne sa njiit su nekkee si li nga xam ne neexul yàlla neexul yonentam waroo kaa topp si loolu waroo kaa topp si loolu loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ñu ko jàngal ne jullit bi su nekkee si réew ab président wala ab buur jiite ko daal di teg seen kaw li nga xam neexul yàlla ak ab yonanteem yow bul ko topp si loolu waaye ndax daf laa wax ne nga folli ko waaye ndax daf laa wax ne nga génn jaay ko doole déedéet maanaam jëf jooju bul si ànd ak moom yow weddil sa xol ne lii ànduma si weddil sa jëf ne lii ànduma si waaye digalul la nga génn ne da ngay siisuwaante ak moom jaayante ak moom doole ndax yow d'accord si déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul loolu parce que soo demee si saxiix muslim si baabu wujubi al inkaari ala al umaraa fima yuxaalifu alsharca wa tarki qitaalihim ma sallaw wa naxwi dalik bunt bi nga xam ne dafay jàng dafay jàngale buur ñi suñ defee lu ñu warta def li nga xam ne dafa wuteeg sharia bu leen ànd ak moom si loolu nga ngeen weddi jëf jooju ne ngeen àndu leen si waaye nag ngeen bàyyi xeex ak ñoom bu leen xeex ak ñoom fekk ñi ngi jàkkaarloo xibla bi di julli maanaam fekk génnuñ si diine ci si xadisu 1854 da nga fekk mi naan xaddatana haddaab bnu xaalidin al asdiyu xaddatana همام بن يحيى حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محسن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف و... فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قالوا لا ما صلوا ينتبه صلى الله عليه وسلم دفعني xadis bi umu salama moo ko jëlee si bi ne sama ginnaaw dana am ay umara ay njiit yi nga xam ne dangeen ni xam si ñoom ay ñaawteef ma ne sama ginnaaw dana dana am ay njiit yu ñëw jiite leen si njiit yooyu dangeen xam si ñoom ay ñaawteef dangeen xam si ñoom ay éréel dangeen xam si ñoom ab caay-caay waaye su ngeen xamee caay-caay googu ni ngeen weddi caay-caay gi yonent bi nee na fa man arafa bari képp ku xam caay-caay googu noonu set na waaw moom naka lañ ko mën a firi ne képp ku xam caay-caay googu set na maanaam soo xamee caay-caay gum nekkee yow nga wane na yow nga weddi sa xol ne caay-caay googu ànduma si te képp ki nga xam ne déggal na la si nekk sa wet moo xam sa doom la wala saw taalibe la wala sab dëkkandoor la nga ànd ak moom weddi caay-caay googu yonent bi sallallahu alayhi set nga waaye képp ku weddi caay-caay googu mucc nga waaleykum salaam waaye képp ki nga xam ne gërëm na caay-caay googu noonu topp caay-caay gi kooku am na si bàkkaar comme ni nga xamee ne njiit googu noonu am na si bakkar léegi saxaaba yi ne ko waa léegi caay-caay googu suñ ko xamee si ñoom naka la ñuy def ndax dañuy xeex ak ñoom yonent bi sallallahu alayhi nee na déedéet bul bu leen xeex ak ñoom fekk ñi ngi jàkkaloo xibla bi di julli bi maanaam dire ñoom ñi ngi def caay-caay googu noonu waaye ñi ngi si diina ji tënku si diina ji di julli bu leen xeex ak ñoom kon kay fenn la la digalee nga génn si moom ba set wecc mooy su demee ba fésal ak gëmadi yàllam ba nga xam ne gëmudi yàlla te mi ngi imposé réew mi si ñàkk gëm yàlla waaye fekk mi ngi gëm yàlla dile mi ngi def ay caay-caay dile mi ngi sàcc sa alal dile mi ngi lay néewal doole dile mu ngi lay noggatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na noggatu gum lay def noonu xamal ne yow bokkoo si àndoo si gëmoo ko waaye bul xeex ak moom fekk mi ngi julli waa léegi ana tey ñi nga xam ne dañoo wax na ñoom <clears throat> dañ leen a néewal doole dañu sàcc seen alal dañ leen a noggot dañ leen a diggoon dara mu jot defuñ ko ñi ne ñoom dañuy génn toj mbir yi dégg nga sànni ay xeer dégg nga euh, di manifester di toj këri jàmbur di toj ay oto jàmbur di toj barabu liggéeykaayu jàmbur waaw loolu ndax yoon la mbir mi nga xam ne ka leen jiita def na ko nekkul yoon ba yonent bi sallallahu alayhi xamal nañu ne loolu du yoon de waaye weddi leen ko si seen xol weddi leen ko si seen jëf weddi leen ko si seen wax weddi leen ko si seen kart waaye nag bu leen tuur deret bu leen sànni tey loolu moo fi am dama ne ñaari kuréel suñ jotee <coughs> ku tooñ danga naan da ngay xamal ne kii moo tooñ waaye nag ki nga xam ne tamit moom lañ tooñ bu mu jëfee jëf ji nga xam ne dafay mujj tooñaat mooy jox ko dëgg waaye nag su defee ab éréel ne ko lii éréel la te jii peuple bi am na tooñ buñ koy tooñ ñu xam ne moom lañ tooñ waaye nag mën na jëfe mën na jëfee tooñ boobu noonu ba far tooñaat wala mu far jëfee si li nga xam ne warul ko woon jëfee du tere dañ koy wax ne ko yow lañ tooñ de mais noo jëfee ni nekkul noonu loolu mooy ànd loolu mooy ànd yàlla dana am ku ma wax nag ne ma dégg nga <coughs> Aboubacar radiyallahu anhu keroot ba mu nekkee xalifa ba gaay ñàkkee joxe azaka moom dafa génn xeex ak ñoom meneen déedéet bokkuñ Aboubacar benn kalifa la président la te président lépp lu yëngu si réew mi moo ko war a régler su teyee mu ànd ak ay takk deram régler loolu te Aboubacar xalifa la loolu sañ na ko yàlla moo ko si jox ndigal alxuraan moo ko si jox ndigal beneen boobu benn bi mooy benn tontu bàyyi noonu ñaareelu tontu bi mooy. ñooñu dañu wax ne ñoom dañoo génne si diine ji dañoo murtat guéné ci diiné ci parce que ku ñak joxe azaka rek guéné nga si diine ji parce que yunus sallallahu alayhi wasallam moñu ñu wax ne euh, digal nañ ma ma xeex ak nit ñi lu may ñu wax ashhadu an la ilaha illallah di saxal ponk juróom yi ñu déggee si ne fekk saxaluñ ponk juróom yoy nonu nekkuñ ci diiné ji té ñooñu dañu bëggona guéné ci ponk diiné ji dara Abubakar na déedéet kon ñoom seen seen ñàkk gëm yàlla sax na te lislaam képp ku taxaw murtat daf lay may ñetti fan nga dellu si soo dellu siwut mu rey la te ñooñu Abubakar wax na leen ñu dellu si waat di joxe azaka ñu bañ kon te moom mooy président dégg nga yàlla may na ko suñu digal mu xeex ak ñoom moo tax dafa dafa dajale ay takk deram ñu dem jàkkaarloog ñooñu jàmbaarloog ñoom bañ dellu si waat si diina di joxe azaka kon Aboubacar benn président la te président moo mën a régler yu mel noonu ñaareel bi Aboubacar ñooñu dañoo def lu tax moo jàkkaarloo ak ñoom te mooy génn diine ci léegi yow mi nga xam ne yaa yaa jug ne dangay ngay faj loolu benn nekk président te l'islam atte du ko teg si loxo peuple bi maanaam kii su ko neexee atte kii su ko neexee atte kii su ko neexee atte l'islam atte da koy teg si loxo attekat yi yow nekkoo attekat yow nekkoo njiit. kon loo jug pour faje ko sa bopp danga koy fajee nu la neex beneen bu si des yonent bi sallallahu alayhi daf laa wax ne fekk mi ngi eh, maam ku la jiite fekk mi ngi si diine ji di jubal diine ji waaye mi ngi def ay yëfi caay-caay bul ànd ak moom si yëfi caay-caay yooyu noonu waaye bul xeex ak moom waaw ndax yow ku la eh, ndax yow yow ku jiite nekkul di julli mi ngi julli waaye mën nañoo wax ne mi ngi def yenn yi nga xam ne wala bok yu bari yi nga xamne de nga naqadina nit ñi te nekkul yoon waye batay yunus sallallahu alayhi wasallam waxul ne la génn génnal nga xex ñoo benen bu ci dess bismillah yunus sallallahu alayhi wasallam yàlla dafa wax ne nit mëna ma wax ne ma yàlla neena yàlla neena sal qur'an ñaari kuréel suñ taxawé di xex dégg nga na ngeen na na ngeen dajale ñaari kuréel yooyu noonu ngeen jubale leen suñ jubayoo baax na ñu delluwaat si liñ nekkoon waaye bis buñ juboowut kenn ki kenn ki tegu si yoon kenn ki jàggati na ngeen jël ka jàggati noonu ngeen yar ko ba mu teguwaat si yoon bis bis bu teguwaatee nag si yoon nag na ngeen ànd ak moom si jàmm am na ko ma mën a wax loolu ma ne ko déedéet alxuraan dafa wax ne ñaari kuréelu jullit suñu wutee la wax na ngeen leen teg si yoon waaye kan moo leen di teg si yoon njiit moo leen di teg si yoon njiit njiit moo leen di teg si yoon tey jii bu nekkee dafa amoon si si Sénégal ñaari kuréel yuñ xam <coughs> ñu wàcc yoon siraatul mustaqim njiit atekat yi ñoo leen di teg si yoon suñ tegoo si yoon baax na bu nekkee kenn ki tegu na si yoon kenn ki bañ kooku la ñuy jàpp caw ko ba mandi ba mu tegewaat si yoon ñu bàyyi ko waaye léegi tey jii nga ne ma eh, tey jii am na si si Sénégal ñaari kuréel yoo xam ne dañoo wuute mais ñaari kuréel yooyu noonu benn bi nguur gi la beneen bi des léegi te alxuraan dafa wax ne ñaari kuréel julit bis bu ñu wutee na leen njiit atte waa kon fii ban njiit moo leen atte nga ma déedéet waaw comme que kon amul njiit bu leen atte kon kon na peuple bi génn atteel ko boppam mais na la bi sallallahu alayhi wasallam loola la loola dafa la wax ne mbir mi su demee ba peuple bi narka atte ñoom peuple bi nañ toog muñ parce que bis buñ génnee fajal seen bopp rek dinañ jéggi siraatal mustaqim yooni siraatal mustaqim yonent bi sallallahu alayhi wasallam fenn la la diggalee nga def loolu moo suñ demee ba ku la jiite a yàq pas-pasu réew mi di leen forcer carrément si gëmadi maanaam si weddi yàlla waaye fekk mi ngi bàyyee ku nekk ak gëm-gëmam di jëf yëfi say-saay si biir nee na la toogal ñun nag du tere ñu ne yow peuple bi yow lañ tooñ yow lañ jël sa xàq yow lañ jël sa alal yow lañ néewal doole waaye nag du tere ma la loo ko bëgg a fajee nekkul noonu loolu ku nekk am na si droit loo ko bëggee fajee nekk noonu tey ji ñaata nit lañ fi gis mu ñu jug ne génn ne dañuy manifesté wu toj këri jàmbur yàq oto jàmbur dajji palaasi jàmbur waa léegi yow bu nekkee da wax ne diw moo tooñ demal si diw moom waaye looy toj oto jàmbur jàmbur boobu noonu lum la def defu la dara looy tojee place jàmbur borom place bi defu la dara looy tojee kër jàmbur borom kër googu defu la dara ku tooñ dañuy dem ba si moom jëflante moom waaye ku tooñut waroo kaa dara léegi ne yow di tooñ nga moo la tooñ nga ne xëy da génn dem faju tooñ bi doo dem si moom la moo la teree dem si la moo tax nga romb euh, nga romb ñëpp dem si borom oto bu néew doole bi nga xam ne mi ngi daw dépasse dem si borom kër gu new doole gi nga xam ne kot kote na ba taxawal këram dem si borom place bi nga xamne ne na dëkkam pour ñëw liggéey nga yakal ko kon yow da nga toñaat yow si kaw toñ benen bu ci des moy <coughs> musiba kenn du ko musiba musiba kenn du ko faje fajee musiba ku am njit bu lay neewal doole ku am njit bi ku am njit bi jël sa xaq ku am njit bi jël sa alal loolu musiba la waaye lislaam digalul nag nga fajee ko musiba mooy génn tur deret di tur deret du di tur deret ba musiba boobu jeex kon yow dindi nga musiba si kaw musiba te musiba kenn du ko dindi si kaw musiba beneen bu si des mooy ndax musiba boobu noonu soo ko taalee pour fay musiba balee ndax musiba balee dana fay déedéet suba dañ naan toogal loolu ñu ko xamal mooy am na diggante 2019 ak léegi am na yenn musiba yu fi xew ñu génn ne ñun dañ koy faj ak suñ doolee pour fi deret ba sonn te terewut fajuwut kon loolu yàq la dama ne ñun ñu jël suñ xàq lu ñu néewal néewal doole du tere suñ ko bëggee faj nañ jëm si alquran xool nu alquran waxee ñu defee noonu ndax yow mii <coughs> soo génnee doo dajee lu dul sa mbokku jullit yow mii soo génnee doo dajee lu dul sa mbokku jullit ko xamne ne dafa haram si mom mu ray la dafa haram si yow nga ray ko te yeen ñaar yeena wara dajé si pëjam bi xex te ku si ray sa morom rek dem safara kon lolu su joté dabu dabu sa haq dabu sa alal bu mu la jël bu mu la jëral ñak sa gëm yalla ba tabbi safara ginnaw ba yoonte bi gañu ñu fal bakkar mu gañu ñu fal umar mu gañu ñu fal usman am ñu bon daal di ko rey amoon na maaraka wuute bu doxoon si diggante imaam aliyu ak muawiya doomi abu sufiyaan aliw ne dañuy fal njiit ba pare dooga lijjanti ñu rey osmaan parce que loolu njiit moo ko mën a lijjanti muawiya na déedéet balaa ñuy fal buur nañ lijjanti ñu rey ñii ba pare parce que loolu moo gën a sës ñu wutee ñu ñaar mbir mi looloo ko sosoon ñoom ñaar ñu wute léegi imaam Aliou <coughs> am na ay takk yu ànd ak moom si waxam Muawiya am na ay takk yu ànd ak moom si waxam te ñoom ñaar ñëpp ñu ngi sàkku njub Aliou dafa bëgg fal njiit pour lijjanti lee maaw dafa bëgg lijjanti lii ñu doog a fan ci waaye borom xam-xam yi li ñuy wax mooy Imam moo jot njub moo nekk si dëgg mu am ñaari tiyaaba Muawiya moom njub la doon sàkku dafa juum amul benn bàkkaar te am na benn tiyaaba waaye Imam Aliyu la ñu ànd ak moom jullit lañ Muawiya jullit la ku baax la. ku tedd la ku yonent bi tagg la waaye ñu ànd ak moom tamit ay jullit lañ kon ñaari armée jullit war nañoo taxaw xeex keroog boobu amuñ kenn ku leen atte parce que boobu amuñ président amuñ dara ñaari jullit ñaari armée jullit war a taxaw jullit bi war a rey moromu jullitam bi jullit moromu jullit bi war a rey moromu jullitam bi ndaw lu yéeme تاي طيب، لوريكا خوفيني سنغا كيروت سعد بن ابي وقاص دا فا داو دا فا بيرو ني موم دو دوغ سي بن ارمي سي نيار اندو يوي نو باسكو كوم راي ريك مورمي جوليتام لا راي ابو موسى الاشعري دا فا بيرو عبد الله بن عمر ابن الخطاب دفا بيرو نموم دو خير سعيد بن العاص دفا بيرو نموم دو خير أسامة بن زيد دفا بيرو نموم دو خير عبد الله بن عمر بن العاص دفا بيرو نموم دو خير ak ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañoo wax ne ñoom fekk maa ngi jàkkaaroo sama mbokk julit du ma jekk du ma jël jaasi gi ne damay xeex ak moom parce que yonent bi sallallahu alayhi waxul leen loolu daf dafa leen wax ne bis bu fitna jotee na ngeen fexe beru na ngeen daw bu kenn taxaw la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne fitna boobu noonu su doo jàkkaarloo ku dul sa mbokkum jullit te sa mbokkum jullit waroo kaa rey lan mooy wane ne rey sa mbokkum jullit di la fitna xew na sax dile moo tooñ sax dafa xaraam mooy <clears throat> yonent bi si dundam dafa wax ne ali ali abi talib ak zubair danañ jotee te suñ jotewee imaam ali moo mooy am dëgg si kaw zubair zubair mooy tooñ imaam ali waaye nag mi bis boobu su jotee bégal leen كي راي زبير بغل لين كو سفره مانام سفره لاي دوك كيرون معركه الجمل ا كيرون اسوار بوبو نونو غا سي باغ راي عثمان سي فوف لا خيوي عاليو سي ارميم لنك نيك زبير نيك سي بنين ارمي با عاليو وغلي واخ لي ني داني فادل بريزيدان دوغلي جينتي كوراي زبير اندك ني kon ñoom ñaar jotee am na te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ji na ko bu yàgg ne danañ jote waaye nag daf ne suñ jotee Zubayru mooy tooñ imam Aliou si foofu lañ xamee ne kon imam Aliou moo amee dëgg si kaw Muawiya parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne armée di nekk Zubayru si beneen armée bi lay nekk te su boobaa Zubayru mooy tooñ imam Aliou bi maana président lañu waroon a fal ba pare wala buur doog lijjanti ku rey Zubayr bañ ko fàttalee xadis boobu noonu dafa dëppaat di dem bàyyi xeex bi am benn waaye bu bokk si armée imam Aliou bi bettee ko ginnaaw war ko rey ko ñii ñu ne dañ kaa fekk sax muy julli ñu rey ko waa ji ba mu ko reyee kontaan daw ñëw si imam Aliou ne ko rey naa Zubayr imam Aliou jooy ne ko yow yow la yonent bi wax ne nañ la bigaleele safara te pourtant mën nañu wax ne waa jooju moom mu nekk si dëgg parce que moom mi ngi bokk si armée ki nga xam ne moo am dëgg imaam Ali moo am dëgg si kaw Zubair armée imaam Ali moo am dëgg si kaw si kaw armée Muawiya kon nañu wax ne waa ji waa ju rey Zubair si armée bu bu nekk si dëgg si la nekk waaye terewut ba mu reyee Zubair safara la jëm bi maanaam yow mën ngaa jàkkaarloog sa mbokkam jullit fitna xew nga nekk si kuréel gi ñi nekk jullit kee nekk si kuréel gee kee nekk jullit moom moo la tooñ nga rey ko yow nga dem safara parce que problème boobu noonu xew daganut yow nga mën ko saa waroo ko saa kon nañ jële si waat xel yi nañ jële si waat xel yi عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب armée imam aliou ak muawiya bañ taxawee àndut benn di xeex dafa daw parce que ñaari jullit ñoo jàkkaarloo diggante zub diggante abdullahi ibnu zubayr ak xajjaaj ba mu xewee dafa taxaw àndut ak fenn xeex parce que xam na ne ñaari jullit ñoo taxaw te ku ne xam ne ne xajjaaj moo tooñ abdullah ibnu zubair wax nañ sax si nettali ne moom abdullah ibnu omar sax maanaam roy na si ginnaaw xajjaaj maanaam xajjaaj jiit na ko mu julli jiit na ko mu julli pourtant xajjaaj moo tooñ loolu loolu loo siy déggee mooy sa njiit fekk mi ngi julli sa njiit feñ mi ngi julli di sax mi ngi tooñ di la mi ngi jël xàqu nit ñi nekkal si ginnaawam maanaam nangul ko ak jiiteem waaye la muy nekkee si tooñ gi bul bul si ànd ak moom moo tax xajaaj ba nga xamee ne dara bés lu du taxawal dañu te mooy julli abdullahi ibnu omar dafa ànd ak moom roy si ginnaawam julli waaye keroog ba nga xamee ne songu abdullahi ibnu zubayr moo des abdullahi ibnu dafa rocceeku ne moom du xeex ak mbokkam jullitam du jàkkaaloog mbokkam jullitam ñoom fuñ teg seen loolu mooy fuñ ko teg mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen mottiloo fitna ne dana ñëw te su ñëwee ku mën a mucc na mucc dégg nga beneen bi mooy saxaaba yi bere woon fitna boobu noonu saxaaba yi ko bere woon gënuñ ñoo gën kon kilifa diine yii nekk ci réew mi tey parce que kilifa diine ak loo mën a mën a mën a mën a foor loo loo foor foor foor foor foor jullit lum foor foor foor foor foor ngëneelu saxaaba moo gën ngëneelu jullit boobu noonu parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko wax si xadis ne ñun ñi kenn su fi jëloon doju doj lu toll nii doju uxut si wurus mu saraxe ko ab saxaaba jël lu toll ni muddu saraxe ko moo xam mudd ceeb la ak lu mën a doon lu tere muddab saxaaba bi muy ëpp doole yow sa doju uxut bi si wurus waxaa si beneen xadis ne maas gu gën si si maasu xeet bi mooy maasu saxaaba yi te saxaaba yooyu noonu keroog ba fi ne xewee am na si ñi nga xam ne dañoo beru woon te saxaaba yi ay royuwaay lañ yonent bi nee na samay saxaaba comme ay biddiw ku ngeen soroy jub ngeen waa léegi saxaaba dafa amoon ñu am xam comme classe Abdullah ibnu Omar Abu Hurayra ak ñu demee ni ñoom Abdullah ibnu Abbas am ñi nga xam ne ñoom ay saxaaba nag ay saxaaba lañ waaye Euh, nekkuñu ay fuqaha te ñii nga xam ne ñoo beere woon fitna bi ñu si bari ay fuqaha lañ ñu si bëri dañoo mokkal xadis ñu si bari ay delluwaay lañ waa léegi tey jii fitna am na saxaaba yi def noonu tey jii suñu réew mi am fitna am ay mag ñu baax ñu nekk si réew mi defuñ dara lu dul topp tànk saxaaba yooyu noonu ay ndaw ñu ñàkk yar jug di dal seen kaw mag mii nga xam ne yaa ngi koy topp guddeeg bëccëg naan ko dangaa war a wax dangaa seytaane mag mii nga topp guddeeg bëccëg naan ko dangaa jéng deful dara lu mooy lu ko yonent bi wax rek la topp parce que yow dañ laa jiite mag moomu tamit dañ kaa jiite mag moomu lu muy for for for for tey jii loxo président nekkul si moom te yàlla jox réew mi tey mooy président waaye moom dañ kaa jiite di la sax am na kàddu si réew mi mais dañ kaa jiite moom kilifa googu taxaw yonent bi waxut ko ne ko da ngay génnee sa jaas wala sa fetal wala nga taxaw di saagawante déedéet lu ko yonent bi wax yonent bi da kaa wax ne ko comme que yow dañ laa jiite lu sa njiit nekk bul si ànd ak moom naqarlu ko waaye bul génn naan da xeex ak moom wala nga jàmmarloo ak moom léegi moom loolu topp yow nga ne ko fas na génnee di ko wax. yow nga ne force da nga ko génnee maanaam da nga ko génneloo wax loo ko moom yonent bi la topp alquran la topp yow nga ne force dana ubbi làmmiñam yow nga ne force dana génn jàmmaarloo ndax kilifa diine googu yow la war a topp wala yàlla la war a topp koo xam ne jàng na seede nañ ak wilaayatoom nangu nañ ko seede nañ ko gëm nañ ko yow xale bu ndaw yow nga ne yow yaa nekk si dëgg waaye moom moo nekk si njubati yow yaay kan yow soo ñàkkee soo ñàkk yar <coughs> ba nga mën a teggi xormaab kilifa googu soo ñàkkee sa ñàkk yar ba mën a tegg lu alquran wax soo ñàkkee sa ñàkk yar dégg nga ba nga mën a tegg lu xadis wax sa ñàkk yar googu demal ak moom waaye bul taxaw bul taxaw mag mi nga xam ne moom xam ne fu muy teg yoo kiyam tànkam ngeen ne ko force dana génn wax yow yaay kan ndax yow dangaa ngaa mës a gis mag mii ne lu lu président bi nekk ànd naa si ndax da ngaa mës a gis mag mii wax ne lu bon lii ñu nekk ànd naa si déedéet mukk moom dafa waaleykum salaam dafa toog néegam di jaamu yàlla maam di jaamu yàlla. di def lu baax di jubal nit ñi xew-xew wi am si amaana sax jël na whatsapp am jàkkaarloog président lay biir ko mën naa am sax jël na portable woo président lay biir ko amaana sax jël na leetaram yónneeku si ñaar ñu ñu jotee ñëpp waaye yow foo nekk yëgoo si dara déggoo si dara waa léegi lan moo la teree dox si yow sa tànk dem ba si moom nga ne ko loo wax si problème bi waaye toog fi nga toog rek déggoo dara rek nga ne wax nga ko maanaam nga moom dafa ànd ak benn kuréel si ñaari kuréel yooyu noonu yow yaa ngi sa kër toog nga xëy sol sa yére sangu nga wala sangu woo xooma si dara parce que nekkuma ak yow dëkkuma ak yow su ma bëggee xam sangu nga wala sangu woo damay ñëw laaj la mais duma ma génn si télé bi rek na diw sangu wu tey parce que gisuma ko yow ku la wax ne loo gis rek ne ku dëgg kilifa googu dangaa dëkk ak moom dangaa dëkk ku dëkk ak moom bu nekkee wax na ak ñaari kuréel yëpp xamoo si dara dama nga laaj ko waaye léegi moom am na droit sax wax ak ñaari couleur yooyu ba pare te du ko wax kenn beneen bu si des ndax moom dafa laa wax ne su waxee ñaari couleur yëpp ndax ñoom danañ dégg ku la wax ne ku la wax ne moom waxut ak ñaari couleur yooyu waaye ñoom ñaar ñoo déggut kon koy moom njaanam wàcc na wala bok ñaari kurir yoy nonu nak am nañ yar yar gi nga xamne ne su kilifa waxe rek danañ ko deg nga bëgg taxaw mum mu wax te lako yoonent bi santone mum kilifa gi moy su problème amé ku mëna rëcc na nga rëcc way santur ko ne ko mu genn di jakarlo koku non tay ji nak mëna ñu gis borom be jaaw bu ponkal taxaw ne fay genn xex alxuraan waxul lool mëna ñu gis ku ñëpp xam mais taxaw ne ne dafay génne xeex génn gum génn xeex taxuñ ne ñu ne alquran loolu la wax wala loolu la xadis wax nañ jëlee si waat xel beneen bu si des <coughs> kër gi su selloon ñu sant si mboolem jikko yu baax jékki-jékki ñaari gan ñëw si biir euh, si biir kër googu noonu ñu toog semaine jikko xale yi commencé yàqu nañ seetaat ñaari gan ñooñu seen taxawaay. Politik Senegal, dama ne na ay njuñ njaaj si wàllu xaalis ak fen waye respect ñak respecté kilifa yi nekkul fi won xoti hormay kilifa yi nek fi won jakko jakarlo kilifa karima ubbi sa gémmiñ sago ko wala nga xas ko wala nga xoti hormam wala nga tumal ko tumal yi nga xamne xel bi xel yi dañuy fay ñaaw dañuy ñaaw si moom amut fi woon kon tey jii bés bu demee ba loolu am si ay at yu néew war nañoo xool ban ban gan moo dugg si politique bi ban gan moo dugg si politique bi ba loolu xew mbokk jullit ñi sonn nañ réew mi lëj na waaye du tere nañ dem ak suñ gëm yàlla wallahi mag mii ngay ah, ngay mag mii ngay ñàkkal xorma mosoo dégg mu fen mosoo dégg mosoo gis mu def lu dul noonu te jii ñaar ñi nga xam ne dara ji teewlu lu àddina naka laay fexe ba yor réew mi ñooñu ñooy tax yow nga saaga sa kilifa gii kon yow war nañ laa seetat yow yaay kan réew dafa baax ay mag jiite ko mag ñooñu suñu waxee xale yi dégg tey gi suñ demee ba yaq digënté mag ñi ak ndaw ñi ba ndaw ñi dootuñ dégluti waxi mag ñi ba ndaw ñi di fenlo mag ñi ba ndaw ñi di forcer mag ñi na leen da ngeen wara war génn ngeen wax man tiit naa si réew moomu noonu parce que bépp réew bu yàqu dafa fekk ndaw ñi joxuñu respect mag ñi ñu nag Sénégal loolu amoon fi trop mooy mag ñi ñëpp leen déggal tey jii am na ñu dugg ci politique bi fexé ba lolu dañ ba bu ben mag diglu ba bu ben ndaw diglu mag ba réussir ci lolu su boba xalé yi lu leen neex dañuy def su leen neexé saga su leen neexé fecc su leen neexé def lu leen neex te ben mag su waxé duñ ko dégg parce que lolu lañ jëk jangal ndaw ñi bala ñuy def benen jikko bu bon te man dama wax ne bép réew bi nga xamné taxaw na mag su waxé ndaw du dégg réew momu Euh, li ñuy wax nag dàq ganaar waxaale sa soxla dafa am dafa am ñoo xam ne dañoo ñëwoon tariqa tariqa bugguñ tariqa suuf suufi tariqa yu nekk senegal bëgguñ leen dañ leen fa bëgg a jëlee ñu def lu nekk mënuñ ko ñu def lu nekk admewuñ si loolu xaal ba politique bi ñëw ñu jaaree foofu noonu gëm-gëm bu nekkoon si ndaw ñi ñu gëm ko tariq euh, maanaam yoonu suuf yi gëm-gëm bu nekkoon si ndaw ñi ñu gëmee ko seen mag ñu baax ñooñu noonu ñu jaaree si politique boobu noonu pour génnee ndaw ñi daane yoonu tariqa yooyu noonu loolu moo fi am nañ ko waxta dee kon dafa baax ngeen ubbiwaat seen xel yi bu baax lu ngeen mer mer mer lu ñu leen sonal sonal sonal sonal du tere ngeen xol fan ngeen tek teg seen tànk dañ leena togn alal ju ñeen warona jox joxu leen ko jamu ju ñeen wara may may mayuñ ko waye nak du tere dama ne seen koy fajj ngeen xol ban yoon ngeen jaar ba fajj ko waye bu leen jégg alquran wala sunna طريقه tijaani moo nekkoon في si Sénégal kenn تبري اي bëri ay parti nag maanaam te bëri ay kër kër sama maam alaaji abdullahi mi ngi fi tuwaawan mi ngi fi ñeneen ak ñeneen ñi ngi fi njaasaan ak waa fuuti yi ñëpp ñu ngi tënku si ñëpp ñu ngi tënku si tariqa bi ñu xam leen si jubal seeni taalibe waa kër Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi fi ñu xam leen si jubal seen taalibe ñu xam leen si lu baax xam leen si yar seeni ndaw ñu ñëw ba jëmmi tey yii yow nga ne ñooñu kenn baaxut si ay ndaw yu yaradiku jël ay kàddu di ko teg seen kaw man ndax loolu yoon la te tegoo si si lu dul dafa génn war a wax dafa génn war a wax rek dafa génn war a wax waxul rek nga ne kon yéen taalibe yi bu leen kenn topp ma ne saxaaba yi kenn du wax si eh, seen ginnaaw lu ñaaw waaye dama ne ñoom seen biir dañu doon def ay bakkaar yàlla di leen jéggal te terewuñu ñëpp yàlla gërëm na leen ab saxaaba séq naa benn xale bu jigéen séq naa moom lu nekk ba mu des njaalo ba mu paree mu tiit ñëw wax ko yonent bi yonent bi ne ko xaaral wax yu wàcc ba wax yu ñëwee yàlla ne ko julil julli juróom yi bakkaar bi dana deñ te terewul ba yàlla di gërëm ñoom ñëpp la gërëm radiyallahu anhum wa radu anhu kon nga déggee si ne bakkaar boobu dañ ne bu yàgg ku si waxati yaa bakkaaru saxaaba yi alquran dafa wax ne ba koor wàccee ñu ne fajar gi ba timis nañ ko woor nañu woor te bu kenn joteeg sa soxna guddi gi mën nañoo lekk waaye kenn du joteeg soxnaam waaye terewul si guddi jotaan ñoom dañ laan lekk waaye nag dana am ñu si laqatu di joteeg seen soxna bañ paree ñu tiit ñu wax ko yonent bi yàlla wàcc ne yàlla jéggal yàlla wàcc alxuraan ne yàlla jéggal na leen ba pare daganal ko ne léegi guddi gi jotee leen ak seen soxna ngeen lekk waaye ba yàlla di gërëm teel wut ña làqatu woon def loolu yàlla dafa xam ne radiyallahu anhum wa radu anhu kon bàkkaar ba dañ ne képp ku si waxati rek yow yaa xalaat ko waaye léegi yow kilifa gi nekk fi jaamu yàlla yow loo xam ne jaamu woo ko yàlla dimbale nit ñi dimbale goo xam ne yow dimbale woo ko nit ñi dégg nga téye ay taalibeem Euh, teg leen si yoonu siraatu mustaqim ba taaliba yi suñ bëggoon a def dara sax moom mu taxaw wax dégg nga ñoom danañ ko bàyyi taaliba yépp war a ànd nekkoo si lu bon moom mu jàpp leen jubbanti leen ba teg leen si yoonu siraatu mustaqim te yow nga bëgg bon loo kooku noonu si ñaari ñi xam ne àddina moo leen tax a jug te mooy mbiru réew seetaat suñ bopp nañ seetaat suñ bopp ndaw ñii tey ma gis man xamatuma ban ndaw la ndaw loo xam ne dafa jàkkaarloo kilifaam di ko dafa jàkkaarloo kilifaam ne ko léegi la daka dafa jàkkaarloo kilifaam ne ko yow sàcckat nga léegi si system bi nga bokk te mooy lan di sa askan dangaa kompuloo di néewal sa askan yow si ñooñu nga ànd ndaw loolu moo taxaw wax waaye fan la ko teg mooy problème am na yonent bi sallallahu alayhi wax mag ñu baax ñoo ngi leen su problème amee nii ngeen def ñoom ñu def noonu yow nga ne déedéet kon yow suñ seetee ba seet yow yaa wàcc yoon mag mi tegu si yoon si sa ñàkk yar ak wàcc yoon nga taxaw ne yow yaa nekk si yoon mag mi moo wàcc yoon waxoo dëgg ndax mag moomu taxaw tey jii su taxawoon jug wax ak njiit mi wala mu wax ak keneen ka ndax ñooñu dinañ ko dégg ak ku la wax ne waxut ndax ku la wax ne mag mi loolu naqadiwul ko waaye ñaar la ñi nga xam ne dañu xëccoo àddina dañu xë xëccoo réew mi si mbiru àddina te suñ fi toogee sax luwaa yaloon daw nga xam ne lislaam bëggut ko mooy continuer di daw mag moomu toog ti diineem yow nga dafa war a génn wax mag moomu nga xam ne wax na taalibe yi ne leen toog leen di jërul tuur deret jërut ngeen tayla si seen bakkan jërul ngeen yàq réew mi taalibe yooyu génn di rey seen bopp yow ngeen ne mag mi dafa war a génn wax ndaw ñooñu génn suñ woon si yoonu siraatal mustaqim tënku si alquran duñ génn bay tuur deret suba lu leen président bi mën a teg lu métti métti métti métti métti benn solution rek lañ am mooy muñ ba ko yàlla di ko dañalee toog yu euh, topp lu ñu yonent bi waxoon ne su leen ko tegee ngeen muñ ba dajeeg man si xawdu ba wala ngeen toog lañ leen teg noonu bu leen ko gëm seen xol bu leen ko nangu waaye nag terewut na ngeen nekk si ron kooku noonu ba ba nga fiy jógee parce que su ngeen jógee rek problème ba muy juraat mooy gën a métti bi ngeen leen bañ mag ñoo ñu dégg loolu mag ñooñu xam loolu moo tax ñu toog yéen ngeen mag ñi nekkuñ si dëgg ينتبه صلى الله عليه وسلم نوخ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده في لم يستطع فبلسانه في لم يستطع فبقلبه كيف كو جس لبون كيف كو جس لم سيب كيف كو جس ني نيوال سا دولي كيف كو جس ني ترخل سا أسكن ني جاك بيت دينج ننكو دين دي أكسلوخو وآي لولو بريزدان مو أم كاتنجي نغور بور مو أم كاتنجي كون بور سو جسان لو جادوت موي تخاو موي تخاو dindil ko boppam waaye buur boobu noonu su demee ba jotee askan bi léegi euh, lu ñu war a dindi noonu noonu kan moo ko war a dindi buur moo ko waroon a dindi te léegi moom moo jotee askan bi léegi kan moo koy dindi beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu beneen solution ne su ngeen ko mënta dindi parce que buur moo ko def na ngeen ko dindi ak seeni làmmiñ maanaam yéen taxaw leen ne lii neexul leen waaye bu leen génn ne da ngeen di jàmbaarloo ak moom parce que su ngeen jàmbarloo ak moom rek. seen bopp ngeen a gaañ te problème bu muy juraat mooy gën a piir bu fi nekk te jël jël alal buñ jël seen alal néew doole buñ leen di néewal doole dégg nga la koy lay juraat mooy gën a rëy te mooy seen bakkan yi dafay tuuru seen kër yi dafay yàqu seen marché yi day tas njaay mi day taxaw xiif gi day bëri te terewut jaay doole buñ leen jëloon jaay doole ba léegi dafay continuer ñu ne su ngeen demee ba mënu leen génn wax parce que su ngeen génnee wax su di wax dañ leen di tëj da ngeen ko naqarlu seen xol ñun loolu lañu yonent bi digal yonent bi digalu ñu violence dégg xajjaaj xajjaaj ibnu yusuf athaqafi safaak lañ ko doon wooye safaak turkatu deret bi dañ kaa faloon nekk woon sax président bur moko fal mu nek ministre kenn xamul ko luddou ci tour deret abdullah ibn zubair hajjaj moko ray ba pare salab ko ci kaw mak ñepp diko gis ay fan yaayu abdullah moomu di doomi abubakar du jigen ñew di ko laaj mu bañ ñaata borom xam-xam moom hajjaj la toroxal ñaata saxaaba la toroxal ñaata jullit la tuur seen deret ñaata yoon la xotti xormaay kaaba ki ñaata yoon ñaata yoon ñaata yoon la toroxal jullit ñi ñaata yoon la néewal doole jullit ñi waaye terewut ne amut benn borom xam-xam si jamono jooju noonu bu jamonoonteeg xajaaj diggal jullit ñi ne leen sampu leen xare ngeen taxaw jàkkaarloog xajaaj déedéet ñoom borom xam-xam yi ñooy taxaw ne xajaaj mii lu nekk nekkul dëgg waye du tere ñom ñing ci ron hajjaj manam dañoo nek ci ronam di muñ fépp ko yalla di téggé way taxuñ ne dañu jambal ak mom di xex ñom di di xeex ak mom parce que xam nañ ne rek bis buñ taxawé xex ak di la sax ñom ñoo nek ci dëgg lamay jural askan bi mu upp ta moy lan néew euh, jaay doole geulon hajjaj di jaay ba légui dina continuer te du tere ñoom dañuy gën a lor seen bopp te mooy dañuy lor dañuy rey seen ndaw ñi yàq seen peuple bi moo tax ñu taxaw di ko muñ di ñaan yàlla ba xajaaj dee terewul nguur gi continuer ba may ti gis sama waxtaan bi sànq wax naa ko qul illahumma malikal mulki yàlla yow yaa moom nguur gi yaay jox nguur ku ko neex yaa koy rocci si ku la neex xam nañ ne nguur gi ëllëg dana dañ waaye tey ji ñu bëgg dindee dindin bi nga xam ne neexut yalla teji ji considéré mi nan nagn coup d'état nagn dem palais nagn ki yow da ngay digal askan yow ñu genn jakarlok ay takku der ño xamne ñi ngi yor ay pistolet te bu len mbir mi sonal dañuy tirer di tirer di tirer askan bi di dé askan bu ya yow non ngay digal askan ñu ñu ñu follé sen président yow mi ya nga digle lo xamne ne deug dëgg yoon mag mi nga xamne yalla tek nako mu jangal quran jang sunna jàngi waxi sahaba yi fekk eh, jàngi histoire sahaba yi jàng su fitna eh, diggante buur ak pëpulam xewee ñoom nu ñu def ñoom ak ñooñu ñu jàng loolu tey fitna jot ñoom ñu def loolu yow nga ne ñoom nekkuñ ci dëgg dippim suñ mag ñu baax ñi ba léegi am na ab kuréel gu nekk si biir Sénégal te dara yitteelu ko lu dul dindi tariqa dindi yooni dindi yooni tasawuf si biir Sénégal depuis ay 1900 ba léegi ñu ngi koy jéem munta sotti tey jii <clears throat> xew-xew bi am ñu am occasion pour dindi loolu noonu ñu jël ndaw ñi chargé leen dugal seen xel mii ne yéen ñu leen jiite ñii dañ leen nax ba sax moo tax tey jii ngeen nekk si problème lijjanti leen te mag ñooñu nguur gi lañ ànd ak nguur gi dañ leen guuxal xaalis moo tax ñu noppi ba gëm loo loolu ndaw ñi ndaw loo gis mi ngi taxaw di saaga mag te wallahi bu njëkk ñemul kon def kon réew mi am na lu si dugg li nga xam ne yéen ndaw ñi taxaw leen ngeen bàyyi xel seen pas-pas yu nekkoon seen biir xol ni yaa ngi koy commencé rocc te benn ndaw nag du génn jàkkaarloo dégg nga mu rey moroomam te su àggee yàlla du ko si def dara yàlla dana ko si def dara parce que dafa rey mbokkum jullitam mu nekkoon na loolu la keroog Zubair bam mu imam ali bañ taxaw sen ñaar armée ku bok ci armée imam ali bi ray Zubair te kooku terewul safara la jëm ndum sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ñaari julit suñ taxawé yëkkat sen jaasi di xex kañ ray ak ray yëp safara lañ jëm sahaba yi ne karay mom moom xam nañ ne dafa ray motax mu dugg safara mais kañ ray mom la motax mu dugg safara te mom lañ ray mi ne parce que mom yeneem moo doon su jekko ko ray da koy ray kon def leen attention bu baax génn di jël ay jaase wala ay xeer di sànni ante di xeex pour dindi li fi nekkoon dara jarut ko fi alalu àddina jarut ko fi dégg nga jamono gënoon na métti ba suñ maam yi di lekk ay xob yéen tey jii suñ su leen su leen yàlla wërsëgalee ngeen lekk ceeb bu wow di la dangeen da nga si sonn dokka am xalaat leen la seen maam yi nekkoon ngeen sant wërsëgu yàlla bi yàlla nag dafa wax ne maanaam yàlla. dégg nga du soppi doxalini nit ñi maanaam du soppi jamono si kaw nit ñi tant que nekk na nit ñi ñoo soppi seen bopp te yàlla dafa wax ne yonent bi sallallahu dafa wax ne nit lañ mel rek noonu yàlla di falee buur si ñoom suñ baaxee yàlla dafay fal buur bu baax si ñoom suñ bonee yàlla dafay fal buur bu si ñoom kon ab su demee ba am nit ku bon ku ko jiite wala nit ku saay ku ko jiite dafa fekk ne ñoom ñoo mel noonu yàlla fal si ñoom ku mel noonu ba bañu dello ci yàlla yàlla folli koku non kon ñun luñu wara wax kay moy naka lañuy xol xool ba suñ jikko yu rafet naka lañuy xol ba suñu jëflante rafet pour yàlla mëna folli koku non tegal ñu ku melni ñom parce que Omar ibn abd alaziz ba jamonoom baxé yàlla dakaa indi baxal ko tek ko si jamonoom motax mu jiiti leen si jamono jitt bu rafet kon ñun li su amé au lieu que ñu xass keneen nañ jël suñu bop fexe defal jikko mais loo fekk kilifa diine gu taxaw nga dangay da ngay xotti démb am na kilifa gu génn wax jàkkaarloog turam wax ne ko looy def ni d'accorduñ si mais ndax tax na mu faju waaw kooku euh, toog ak noppi yemul kon ñoom luñ def xam nañ ko yow nag mënoo far fii mënoo xool li nga xam ne moom nga yaakaar ne moom nga war a def nga def ko yow nag nga ne mag ma moom loo looy def rek loolu loolu la war a def déedéet yow am nga liberté <clears throat> yow am nga liberté ba def loo bëgg a def kon moom tamit mag ma bàyyi ko mu am liberté ba def lu mu bëgg def yow yaa war a tuumaal sa kon daa maa yëri bokk ilaa maa laa yi bokk baa bàyyil lu lay sikk sàkkaloo nga dem si li nga xam ne sikk sàkkaloowul la xamoo nax soo génnee dañ la rey wala duñ la rey toogal sa kër xamoo nax soo génnee dangay ngay rey ab sa mbokk julit wala doo ko rey toogal sa kër xamoo nax soo génnee danga nga da nga yàq jàmbur toogal sa kër xamoo nax soo génnee da taal réew mi toogal sa kër dégg nga loolu la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sant bis bu finne jugee kum mën a daw yëg si sa gëlëm daw na daw képp ko mën a daw dégg nga yéeg si sa fas dawal képp ku am oto dawal képp ku am foo laqatu laqatul ba yàlla di tegg fitna jooju noonu loolu la yonent bi sallallahu alayhi sant yonent bi sallallahu yàlla da kaa wax ne ko yow yonent bi lu yàlla jottali loo na ko jottali yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika lu la yàlla jottali loo na ko jottali kon bu nekkoon ne suñu amee président bu jeng xeex ak rayante mooy tax moo ko fi jëlee te loolu mooy njub yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ñu sant mais dafa xam ne loolu du ko dindi muñ moo koy dindi ak yow nga nga wane ne lii d'accord si waaye nag du tere nga nekk si roon njiitam ba ko yàlla di dindee loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñu sant ne moo koy dindi moo tax mu digal ñu ko su ko loolu leneen di dindi loolu la ñuy digal kon nag yonent boobu noonu nga xam ne moo la ko digal topp ko toppal si lu la digal bul diglu seytaane mu lay wax ne fekk deret tuuruwut du dañ fekk génnuñ jaayante folle ko du dañ kon nañ dellu si jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa maa yaribuka ila ma laa te nag <clears throat> yonent bi wax na ne <clears throat> jaase su génnee si aw fitna su génnee si aw nit bañ rocc jaase yi jaase yooyu noonu du duggaat seen mbat ga fa fekk bis biñ ci taxaw kon ñun Sénégal gi yàlla dimbali nañu ba amuñ fi ay kuréel yi xeex duñ génnee jaase duñ génnee ay fetal ñaari kuréel taxaw di tiire wante lenn rek xam nañ ko fi mooy ñu am doole di néewal seen peuple doole di leen tiire waaye ñaari kuréel taxaw di tiire wante amut fi kon nag loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee xasee xew si ab dëkk du mos a dañ tànk bis ci taxawut kon nag loolu ñun comme que amaguñ ko nañ sant yàlla ba buñ ko fi sulli yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fitna dafay nelaw yàlla rëbb na ko ko yee parce que yàlla dafa wax si ne ragal leen fitna parce que fitna su xasee jug xamut ku tooñ ak kañ tooñ ñëpp lay bombardé tey jii xam nañ ko suñ génnee di manifesté xamuñ lii président moo ko moom wala lii kee moo ko moom lépp lañuy ñuy bombardé di yàq ay oto jàmbur taxi jàmbur kër jàmbur te loolu bokkul fitna bi. lan moo ko waral fitna baa ko waral kon nañ ragal fitna buñ jixee fitna buñ xool suñ mbokk yi nga xam ne gëmuñ luñ gëm ñu bëgg a jaaree si politique bi ba yàq loolu nga xam ne ñoom lu rëkk leen tax a jug mooy dindi tariixa fii Sénégal dindi yoonu tasawuf fii si Sénégal te loolu moo leen gënal fuuf luñ mën a am moo tax ñu jaaree si politique bi laqatu si ginnaaw di dàq ginaar di fajaale sa soxla te loolu bis bu amee rek دنجا <coughs> موي ريومي يقنا كن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إلي أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته